asalaamaaleykum internaute waa Feeling Dakar dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen nag dëgtal leen benn xibaar boo xamante ne ni daal nañ koy euh, jot mu nekk nag xibaar boo xamante ni daal dina ñeel euh, ki nga xamante ni moom moo di Oumar Touré Oumar Touré nag moom moo yoroon dossier bi nga xamante ni moom moo ñeeloon Adji sax ak Ousmane Sonko ba tax na nag dañoo daal di euh, gis ñu daal di publier benn bataaxal boo xamante ne nii. moom Amar Touré si boo xam moom moo ciy wax dañ leen daal di dëktal li nga xamante ni moom moo di bile bataaxal moom nag fu mu dooree moom moo di man maa ngi tudd Omar sama tur nag xam naa ni ñu bari dinañ ko xam ndax nag moom moo nekk ci li nga xamante ni moom moo di procès verbal ba nga xamante ni moom moo opposé kii di mademoiselle Adji Sarr ak ki nga xamante ni moo di honorable député Ousmane Sonko mu ne nag moom man benn simple capitaine la bu gendarmerie ba nga xamante ne nii dafa nekk ci obligation wu wax ci li nga xamante ni moo di risque ci li nga xamante ni moo ñeel viwam ba tax na moom daal dina xamle rek ni que depuis fuitu procès bo verbal bi nga xamante ni moo ñeeloom enquête bi moom ay nit dañ koy daal di topp ay nit yoo xamante ni nii xamul woon lan moo leen tax a jóg ba nag dafa daal di informer mbir moomule ki nga xamante ni nii moom moo di supérieur am ci noonee la daal di yégee rek ni que élément yooyu doon ko topp nag ay élément wu direction nationale bu renseignement sénégalais law ci benn affaire boo xamante ne nii privé la moom nag loolu daf ko daal di jaaxal ci noonee nag la daal di waxee ki nga xamante ni moom moo di supérieur am ci benn correspondance boo xamante ne nii daal dina date le 3 mars 2021 ndax nag moom dafa daal di tiitoon ci lu ñeel kaaraangeem ak basu njabootam mu ne nag boobu ba tey benn mesure boo xamante ne ni daan nañ koy jël ci individu yooyu amul ndax nag ñoom dañoo daal di continuer woon di suivre di topp li nga xamante ni moom moo di ay déplacement wam ay dem ak a dikkam lépp dañ ko daal di toppoon ba noppi daal di koy mettre sous écoute lépp loo xamante ne ni communication la woon mu ko doon def lépp dañ ko daal di woon topp loolu nag mu daal xamle rek ni que violation wu droit wam loolu nag mu daal di xam ne rek ni que violation wu droit constitutionnel am la ba tax na moom mu ngi ciy wax rek ni que dañ koy daal di soupçonner rek ni que moom mooy daal di jàppale benn opposant boo xamante ni nii moom musu ko xam musu ko rencontrer lu mooy jour bi nga xamante ni nii daan lañ koy remettre li nga xamante ni moom moo di première convocation am ba nga xamante ni nii moom ci boppam moom moo ko daal di yóbbu ndax nag liggéeyam la doon def mu ne nag ci li nga xamante ni moom moo ñeel ordre chef am waaye nag wax na ni dëgg la moom dëgg la moom nag li nga xamante ni moom moo di droit de réserve daal na koy tënk waaye toutefois ba nga xamante ne nii état bi dafay appliquer la nga xamante ni moom moo di réciprocité bi en respectant li nga xamante ni moom moo di ay engagement wam ci li nga xamante ni moom moo di jëmmam joojule ndax nag moom mu ngi mettre li nga xamante ni moo di en danger dundam ak li nga xamante ni moo di basu njabootam moom nag daal dina wax rek ni que nekk na ci yoon dénoncé ba noppi jël li nga xamante ni moom moo di sénégalais yi ngir ñu servir ko de témoin moom nag daal na wax rek ni que dafay daal di bëgg informer li nga xamante ni moo di communauté nationale ak internationale bi que ni lépp lu nga xamante ni nii daal dina koy dal moom wala benn membre ci li nga xamante ni moo di famille wam li nga xamante ni moom moo di état bi ñoom nag ñoom ñooy nekk responsable bi ndax nag jamono ji li nga xamante ni moo di dundam ak dundu njabootam dañoo nekk en danger ba tax na moom daal na xam le rek nika tey jii bu fekkee ni que am na leen loo xamante ni dal na ko wala mu dal njabootam état bi ak li nga xamante ni moo di gendarmerie nationale ñoom ñoom ñooy nekk les seuls coupables ndax nag ñoom defuñu dara ngir arrêté li nga xamante ni moom moo di violation wu ay droit wam ndax nag moom daal dina xamle rek nika moom sax daal dina joxe bile proverbe français bi nga xamante ni tey wax kii na dix mots consent looloo waxal mu jàpp rek ni que li nga xamante ni ñu ngi ko koy def ñoom dañ ci ànd ba tax na moom daal dina wax rek ni que ba tax na moom daal dina dànkaafu képp koo xamante ni nii dafay daal di produire benn preuve matérielle ci li nga xamante ni moo ñeel kontakam ak député bii di Ousmane Sonko lu mooy la mu wax ci kaw moo di benn yoon ba ñu gisantee mooy ba mu koy yóbbul li nga xamante ni moom moo di convocation am mu ne nag dara justifié wul li nga xamante ni nii moom la ñoom état bi di def mooy ñu koy surveiller ba bëccëg comme li nga xamante ni moo di benn criminel loolu nag moom rafetlu ko en tant qu'officier public ci noonee nag daal dina wax rek ni que su fekkee benn officier bu gendarmerie moom mën na subir li nga xamante ni moom moo di benn discrim discrimination ngir ngir dab bànneexu benn individu bi nga xamante ne ni moom dafay demander naka la sénégalais yi lambda ñoom lañ leen di traité. mu daal di ci doole rek ni que képp ko bépp nit ba nga xamante ne ni daal dina jël fonction bi ngir li nga xamante ni moo di gañ benn euh, gagne-pain daal di bëgg li nga xamante ni moo di kut daal di maintenir li nga xamante ne ni moom moo di ay njuuj njaaj ngir euh, def ngir dab bànneexu benn euh, kilifa wax na jël nag exemple ci li nga xamante ni moom moo ko dal loolu la daal di xamle di wax rek ni que loolu waral mu daal di jël li nga xamante ni moom moo di démission am daal di koy jébbal li nga xamante ni moo di ay kilifaam ndax nag jamono ji moom viwam ak basu njabootam dafa nekk en danger loolu waral nag moom mu daal di démissionné ba tax na daal di xamle rek ni que moom sax xelam dalul bu tëddee guddi sax du nelaw ndax à chaque fois rek li nga xamante ni moom lay dund moo di ñu koy topp ak harcèlement yi nga xamante ni nii moom mu ngi koy dundu mbokk internet yi mu nekkoon bataaxal bi nga xamante ni nii. kii di Seydina Oumar Touré moom nag daal dina koy jagleel peuple sénégalais bi ba na nag bile bataaxal dañ leen koy daal di dëgtër rek ci li nga xamante ni moo di kàllaamay nasaraan moo noonu vous un pas chers sénégalais et sénégalaises je m'appelle Oumar Touré mon nom ne vous est pas inconnu car il apparaît dans le procès verbal de l'affaire opposant mademoiselle Adji Sarr l'honorable député Ousmane Sonko. Je ne suis qu'un capitaine de gendarmerie qui est dans l'obligation de parler au risque de ma vie, car à l'impossible, nul n'est tenu. Depuis la fuite du procès verbal concernant cette enquête, je suis suivi par des individus dont j'ignore la vraie motivation jusqu'à ce qu'on m'apprenne qu'il s'agissait des éléments de la Direction nationale du renseignement sénégalais. Pour une affaire privée, j'ai été plutôt surpris par cette mesure. J'ai ainsi saisi ma hiérarchie par correspondance en date du 3 mars 2021 de mes craintes pour ma sécurité et celle de ma famille. Depuis lors, aucune mesure n'a été prise et les individus continuent leur forfaiture en suivant tous mes déplacements, allant même jusqu'à mettre sous écoute mes communications, ce qui constitue une violation de mes droits constitutionnels. Tout cela parce que je suis soupçonnée à tort d'être à la solde d'un opposant que je n'ai jamais rencontré que le jour de la remise de sa convocation dont j'étais porteur, donc en faisant mon travail, conformément aux ordres de mes chefs. Il est vrai que je suis atteint au droit de réserve. Toutefois, Lorsque l'État n'applique pas la réciprocité en respectant ses engagements envers moi, en mettant en danger ma vie et celle de ma famille, je suis en droit de dénoncer et de prendre les Sénégalais en témoin. Je tiens à informer la communauté nationale et internationale que tout ce qui m'arrivera à moi ou à un membre de ma famille sera de la responsabilité exclusive de l'État du Sénégal de la gendarmerie nationale qui n'a rien fait pour faire cesser la violation de mes droits, qui ne dit mot consent. Alors, je ne peux pas rester inerte face à tout ce qui peut m'arriver dans les jours à venir. Je défie quiconque de produire la preuve matérielle de mon contact avec le député Ousmane Sonko, hormis le motif cité plus haut. Rien ne justifie qu'on surveille comme un vulgaire criminel en tant qu'officier public. Si un officier de gendarmerie peut subir une telle discrimination pour faire plaisir à un individu, je demande comment le Sénégalais lambda sera traité. Toutes ces personnes qui prennent la fonction comme un gagne-pain en voulant coûte que coûte se maintenir, même s'il faut magouiller pour faire plaisir au chef, doit prendre exemple sur ce qui m'arrive aujourd'hui. Le jour où vous changerez de camp, ou soupçonné d'être à la solde d'un opposant, vous subirez le même traitement. Par conséquent, je transmets aujourd'hui ma démission au président de la République du Sénégal par voie hiérarchique en renonçant volontairement d'une manière absolue aux prérogatives attachées à mon grade. Je préfère la fin avec la conscience tranquille que l'opulence en perdant mon sommeil et ma sécurité. mu ngi noonu internet Feeling Dakar kàddu yi nga xamante ni nag kii di Seydina Omar Touré moom la wax ci lettre de démission bi mu jagleel président de la république bu Sénégal moom lañ leen dëgtaloon ci kàllaamay nasaraan ak kàllaamay kocc ñu leen di jaajëfal bu baax ci teewlu bi deen wax rek ni que continuer leen di abonné ci suñu chaîne bii di Feeling Dakar TV information yu ñu mënti jot rek nañ ko partager ak yéen en temps réel jërë ngeen jëf